jërëjëf bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu ay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb rek ñu ngi lay jaajëfal foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew gis nañ cofeel bi nga xamante ni am ngeen ko ci wasaare làmb waaye bëgg bu ngeen ñu bëgg rek bëgg nañ leen bëgg bu karaw raw ndax wolof daf ne bëgg boo gis yëg moo koy fay mbokk yi fan ku ci nekk xam na ni saison wu làmb tëj na ci jàmm ak salaam tëj nañu ko ci ni ñu ko bëgg a tëjee xale yi bëri nañu xeex nañ def nañ li nga xamante ne loolu la ñu doon séentu ci ñoom te gis nañ ko ci ñoom. ñuy félicité waat bu baax a baax jeunesse sénégalaise bi gis nañ saa su ne bu ñu xewlee ñu teew ci rawatina ni ñu bëggee làmb di lancer waat appel président de la république di ko ñaan ñu gën a teg loxo ci xale yi. ndax yaakaar naa ne xale yi saa su ne gëm nañ sport bi bëgg nañ ci te ñu ngi ciy def lépp lu ñu man mbokk yi dañuy leen di ñëwal rek résumé leen li nga xamante ne jot naa xew ci saison bi mi muy tëjee saison bi dafa tëjee tëj bu tëjin bu neex ndax bu ñu nee le 14 août jam production moo ko organisé woon grand combat bi doxoon ci diggante fist de Balla ak Gora Sock mu nekkoon 100 pour cent Pikine 100 pour cent Guédiawaye ak 100 cent Parcelles kii di waree école de lutte Balla gay Balla gay 2 indi ko kii di wéree jàmbaar wrestling academy Papa Sow indi ko ak le roi de arènes Modou Lo combat bi nekkoon combat boo xamante ne combat bu neex la combat boo xam ne amateurs yi soxla woon nañ ko doon nañu ko xaar mbokki pour ñu dem ci jàngat bi dañuy dem ci komba bi dox ci diggante Fils de Balla ak Gora Sock mbokki ñu wan leen tuuti ci combat bi su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem Fall Global Textile Boy Zil écurie Fallaye Baldé Moussa Dioum Jambar Wrestling Academy Moussa Dioum cokaas na Boy Zil daw xeex bëree jàppante nañu Moussa Dioum caxabal caxabal caxabal caxabal caxabal la daan na Moussa Dioum awaay Boy daan na waay kay Ibrahima kaay waay kaay champion waa ana ku fees dal ci xam wax mag dem dañ taali dagg war mbaab lu waay doon jaay léegu lamb combat bi jamaykee da koo jàppoon le 20 mars yàlla suñu borom antuwul li ko waral mooy góor moo amoon benn blessure ñu dëkk géejawaay ba ci fils la Balla ne daa daw góor a soog dem préparé ji faju ba état de santé macha allah wér gu yaramam lépp ne impact ni ko xale yi di waxee mu ñëw tey fas yéene laale xale bi di fils ndeysaan arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Fils de Balla arbitre bi na mbokk yi dimanche 14 août 2022 il est 20 heures 19 minutes Gora Sock féete la càmmoñ Fils de Balla la ndijoor nga jàkkaarloog moom ñu ngi la est-ce que dina am round d'observation ñoom ñaari xale yi Fils de Balla wala Gora Sock day dem ndeysaan ca kaw la jëm a Sock door na ndeysaan cokkaas na Fils de Balla Gora ñoom ñaar kenn mooy njëkk a song Fils de Balla Gora Sock Gora Sock Fils de Balla ña ngay xeex ña ngay xeex Fils de Balla ngay xeex laa <laughs> ilaaha illallaah supporters yi yuxu nañ Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla jiital tànk càmmoñ Gora Sock jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar bu ñu xeexee mu neex suñu bëree mu neex Fils de Balla Gora ñu ngi lewaatoo combat bi maa du daa nar a duré Fils de Balla Gora ñu ngi lewaatoo Fils de Balla daw na jàpp am na ngemb bu sulu bu sulu ku nekk ak sa foor waaye Gora koo yëg liir ko téye ci loxo bi boo ko defee li mu bëgg du sotti waaye ñoom ñaari xale yi ku ci nekk état de forme bi nga indi jaar na yoon ku ci nekk fonk bi dóor na laa ilaaha illallaah dóor na ko jël na ko daan na ko laa ilaaha illallaah Fils de Balla daan na ko jël bu daa bëreeg moom jël ko jëlal Balla Gaye jëlal Balla Gaye eh, fan la Balla Gaye jëm topp na fils de Balla eh, Ndeysaan fils de Balla wane na boppam waaye fils de Balla wane na boppam mbokk gis ngeen combat bi dox ci diggante fils de Balla ak Gora Sock ñoom ñaar dañoo wuree ci bëre wuree nañ ci bëre ñaari xale yi ku ci nekk joxe na li mu war a joxe mais góora dafa am benn erreur boo def ci combat bi te làmb saa sune waxoon naa ko ci jàngat yi njëkk mooy ni nga signé boo ko bëree rek boo ñëwee ñàkk sa làmb Fils de Balla daf laa wan nit ci signature contrat yi dama laa ñeme jëfe ko ci làmb ji dugg siwaale ko stade wane ko ci diggu géew bi wane ko sax ci biir kombaa bi Gora kenn xamul keroog li nga indi ci làmb ji kenn xamul loo indi parce que gisuñu Gora Sock mu xeex gisuñu Gora Sock mu bëree Gora li mu réservé ci làmb ji dafa bari torop ñuy félicité waat bu baax Fils de Balla xale la boo xamante ni am na cër ci làmb waaye mu ngi koy wane ndax dafa bëreeg général Malika stade Iba Mar ñoom ñaar ci biir bëre bi ñu bëre mu daan ko ñu bari ci làmb ne dafa rëcc mu jël góor te ñoom ñaar ñëpp ay mbëru simple lañ ñu bari ci axlu làmb ne du ci génn moo newaat boppam def ay preuve am ba am ndam lu rëy. Fils de xeex na ak góor a wuy si ko ci biir xeex bi mbokk yi ni ñu bëree wuy ko ci xeex bi ñoom ñaar ñu bëre corps à corps Fils jël na benn uppercut boo xamante ni yëgul ni sax jël na ko. mais ci biir jël bi mu ko jël Gora Sock daf ko dóor uppercut mu wàcc def demi flexion ànd ak moom def ak Gora ci biir rotation boobu bi Gora Sock di daw dafa seen tànk bi mu dóor ko ca xabal accompagner ko ànd ak moom daan ko jël bu amul benn werante ñuy félicité bu baax fis de Balla di encouragé góor di wax ni làmb noonu la ñaari ndam moo doon dugg waaye benn mooy génn keroog bis bi yàlla suñu borom moo tuddoon ni Fils de mooy am ndam ak nu mu mënti demee mooy am ndam. Fils de nag ñi ci kaw war nañ ko tàllal loxo ndax ba ñu ko seetee këram la mu wax dégg ngeen ko am na ñoo xamante ne war naa mën a boole ak làmb boole na leen ak moom. Fils de Balla Quench combat bu neex la ak làmb soxla nañu ko te bëgg nañu ko Fils de Balla ak doomu dàng làmb ju neex la Fils de Balla ak euh, sëriñ Ndiaye 2 combat fis de de la ak Modou Anta bu Thiès combat fis de Balla Moussa Ndoye combat kon Fils de Balla def na ay preuve am ci làmb ñuy ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax gars yi mbokk yi ñu ñëw ci tournoi dix lutteurs yi noonu la ñuy barastikoo rek dem ca tournoi dix lutteurs yi nag li ko waral mooy dañu xool dix lutteurs yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ ci bëre simple ñu boole leen mu am poule A am poule B bokki dañuy dem foofu wan leen ñi nga xamante ne jot nañu participer ci tournoi bi wan leen combat yi demi final bi ak final bi su ko defee ñu dellu si waat bi ay ca ñu dem. doomu Bawol baa ngi noonu ci loone waaw ziar naa la doom day maa am jàmm baax waaw bu baax anak samay mbokk anak waa Bawol ñu ñaanal ma yëpp ma ma ñëw war defante jom fit fu fayda rek compétition bi dafa uteeg yeneen compétition yi mooy dañoo xool dix ponkal yi nga xamante ne ci lutte traditionnelle bi def nañ ci seen i ñu jël leen dajale leen boole leen ci ban nga bokk poule A bi wala poule B. man maay poule A. man xaw ma sax. waaw li ngay def. walaay xaw ma ñu dem ci àll bi waaj ak say mbokk ñëpp ñoo la man sama bopp laa waajal rek mais waajal ma mbëri. Oh. waaw li daan mbëri maa koy def mais sama bopp moom waajal naa ko. abi doomu àll ba ay ñaax yëmbal laay benn baraak ak fan ak bun no ak Kër Masar ak montagne bëbës ak waa Kër Masar ci dépilitance ak waa xama ak waa Diamaguène yaa may dégg ak waa Samsam ma fi bi dafa yaatu foofu yëpp mënoo faa dëkk fenn la naa Mohamed foofu yëpp samay secteur la oh. billaay wallaay waaw ñëw ak xel mu dal ñëw ànd ak sumay xarit ànd ak sumay mbokk ànd ak di jàmm ñu yeb ma dooleel ma ñëpp nekk suma ginnaaw ñaan rek yàlla suturaal ma. poul A nga maa ngi poul B. kan yaa kan man la Fils de Berlin. Touba Kouta. Libidor ak Thiaka Faye. neex na wala ñun lu metti amul ci ñun ci làmb. man su ma duggee ci làmb amul luy metti ci man. xale laa quoi te liggéey macha allah. waaw c'est normal ñu waaj. <laughs> c'est que dañuy tàggatoo quoi xam nga système buy tëj mooy loolu noonu yaa ma gën a xam mais mooy loolu dañoo dañ koo meññ sax mais li ñu waroon waaj a dëgg waajuñu yàlla xam na loolu. waaw am nañ contentement gaan di waaw di rafetlu di la sant yooyu ba jëlee mais léegi da ngay toog ba guddi def yow caytaar nga. Amady nuyu naa la. fay naa la. noo ni ma doon ñëwee rek. tey na de doon ñëwee rek dañuy préparer rek ñëw. waaw tey da ngeen nekk dix lutteurs yu ñu jël mais ku ci nekk xam na ci koy am yow yaa ngi bokk ci poule A bi xam nga sa adversaire yëpp lan nga koy waajee. waaw comme ni ma doon waaje leneen làmb rek waaw comme làmb la rek waaw. mais lii day mel ni comme bëre dóor xam nga ñi nga war a am. waaw. pare bu baax. bu baax ñooy tase ci géew gi rek ñun ñooy tase bu làmb amee waaw di ñaan yàlla rek mu defal ma ndam. incha allah géant laa am géant bari waaw. waaw bëri nañ. ah. daan na ma daan naa ko. ku ne waaw daan na ma benn yoon man daan naa ko ñetti yoon. waaw. merci. jaajëf Maama. ñëwee tey. ñëw rek pour jël drapeau bi incha allah. mais tey compétition bi dañoo jël dix lutteurs mu nekk loo xamante ne ku ci nekk xam nga kan ak kan ak kan ngay am te loolu dafa laaj préparation ci wàllu préparation noonu ma pare pare nga gars yëpp. waaw lamb la rek lamb moom lamb la mën a doon bu ñuy ñëw dañuy pare li lamb laaj yëpp pare nañ lépp daal di ñaan yàlla moom suturaal ñu may ñu ndam ma yóbbu kàmma incha allah rabbi. oui premier combat koy am. Libidor. ñaata yoon laale nañ de laale nañ man ak moom. nga li muy saf xam na li ngay saf. waaw ku nekk xam fii ñëw ñëpp ku nekk xam na sa morom li muy saf coolee nekk rek amateur yi ñooy wax nii rek mais ñun bëri xamante nañ. billaay wallaay. jaajëf gaynde. jërëjëf Ndaka nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay sant yàlla bu baax. noo ñëwee. waaw gis nga waajal affaire yi rek. billaay mais bëri naa nag waaye kii daan ko waa Sire mais sama séance a ngi ci kanam quoi incha allah. mais compétition bi waajal ko yomb na wala métti xam dix lutteurs yi yëpp ku ci nekk ki ngay am. non yombul yombul yombul ndax bi may ñëw ci compétition bi damaa feebar am na une am na bi mu desee quatre damaa sol butéel. mais loolu moo tax may bëre si contrat jàmbur laa ne ma respecté waaw li ci mun di bu may sox sa dinaa ñëw. yeah. bonne chance. ok merci waaw. émission bi demagul fenn. waaw incha allah incha allah yàlla baax na ok waaw. gaynde kaay. Tony. yaa ngi lor. Libidor nuyu naa la. maa ngi lay ziar. maa fit ak jom. yow it pare nga say morom ndax xam nga ñi ngay am ñi lay am. fii tey xam lu fi génne mbër. fulla ak fayda ak entraînement. loolu c'est après. sama ñaani waajur. demu fenn. sama ñaani waajur. yàlla na ma sama ñaani waajur wàllu fii. yow ci foo nekk poule A bi wala poule B door wax na ba jooy. <laughs> naa la fils de Balla. delloo naa la ko baax. noo ñëwee comme niñ daa ñëw rek incha allah. dix personnes ku ne xam na kan lay am. préparation bi dina métti. non méttiwul comme ni ñu waajee yoon ba pare rek yeneen lamb yi rek. non non non noonu rek la yàlla na ko. nag poule A wala B. xaw ma naa poule B la de su ma juumul. kan am. non xaw ma kan laa war a am nag sérieusement. waaw mais en tout cas su ma gënoon a bokkal poule Thiaka Faye. Libidor ak Général Malika. ñëw ba. noonu laa waaw fi nga bokk poul bee nga bokk maa ngi ñëw ci. jaajëf. Ndiaye naa la. maa yaa ngi ci nga ñëw ci compétition ngeen nekk dix personnes dix personnes yëpp ku nekk préparé sa morom est-ce dina yomb. ci ban nga bokk A wala B. naa nga bokk léegi daan nga ki nga xamante ni booy euh, euh, bukki bukki ndàngaan foo jëm ndeysaan dégg nga mu ngi tontu nag waaye ci xel lay tontu ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal moom Serigne Ndiaye kaay ndeysaan loolu dama koy nangu Géant nuyu naa la bokki wasaare fay naa leen maa ngi sant yàlla ñëw kon ni ma daan ñëwee rek waaw kon ni ma daan ñëwee si compétition rek noonu laa ñëwee jom yi dañoo jël dix lutteurs poule A poule B A bi ngeen bokk yéen cinq personnes B bi ñu bokk cinq personnes ku nekk war a préparer morom préparation bi nu muy demee. noo tey mooy gën a yomba sax si ñun ndax boo daan ñëw di fekk soixante quatre lutteurs tey nga wala trente deux tey nga ñëw am dix loolu moo gën a yomb saaf saaf la def. mais yow kan ak kan man mu Serigne Ndiaye Mamadou Ndiaye El Hadj Ousmane bu Bawol. waaw ñooñu la am. daan nga naa Mamadou Ndiaye. Ndiaye mos a daje. ñoo daje. waaw dinañ daje loolu mooy dina mel ni wuure. yaa bu yàgg champion la moo tax ku ko daanul champion boo doonul champion doo doon champion. waaw noonu la demee. gis bëri. lu neex la ñuy bëri maa la ko wax yi ñu ngi noonu ñaari demi finale yi. ci wàllu poule A ak B Serigne Ndiaye moo génn poule A moo nekk tête euh, tête de moom moo génn ak quatre combats quatre victoires am deuxième am deuxième bi génn ci poule B bi muy kii di Toubacouta poule B euh, kii di général Malika moo fa génn moom it aussi avec moom it quatre combats quatre quatre victoires arbitre bi sifflé ndoo ñoom ñaar mu am deux deuxième bi ci poule B bi ñu ngi noonu diggante Toubacouta ak Serigne Ndiaye 2 jàppante nañu Toubacouta Serigne Ndiaye ngay bëre Serigne Ndiaye ramassé na ko daan na ko Serigne Ndiaye 2 daan na Toubacouta Serigne Ndiaye 2 dem na final laa ilaaha illallah ndaysaan Géant bu Bargny ndaysaan Géant génn na ndaysaan génn na moom Géant dafa gaañu ndaysaan dafa gaañu te nanguwul ñàkk a bañ a bëree ndaysaan Géant bu Bargny génn na ñàkk na moom Géant bu Bargny ndaysaan Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 dem na final ak général bu Malika ndeysaan Serigne bu Malika ay ca bàkk ba jib na arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye ndeysaan am round d'observation Serigne Ndiaye ndeysaan général sol na ko sol na Serigne Ndiaye ci final bi Serigne Ndiaye mot ko dañuy bañ ñoom ñaar ay ñaari ndaanaan lañ Serigne Ndiaye général Serigne Ndiaye daan na eh! Serigne Ndiaye jël na final bi Serigne Ndiaye ndaysaan moo ngay waxtaan ak moom Serigne Ndiaye jël na final bi ci kaw général bu Malika. mbokk yi gis ngeen final bi dox ci diggante général Malika ak sëriñ Ndiaye 2. ñuy encourager képp koo xamante ne da nga participer woon ci compétition bi te ñàkk ñuy masaw bu baax géant bu bari ñi mbokk yi dafa gaañu ci dernier combat am la gaañu ndax géant géant bu bari ñi ku ne xamoon na ni ci favori yi la bokk mais xale la boo xam ne bàyyi leen xel ci moom te xam ne mun naa doon lu ne ci làmb moom géant bu bari am na corpulence bi am na xarañte bi mën na bëre te ñeme na li muy def. compétition bu am da ngay gis géant bu Bargny ñu wane ci boppam ñu ngi koy masawu ci blessure boobu waaye ñu ngi masalu fils de Badlenski moom it dafa bëreeg général bu Malika ci biir wuure bi ñu ba wuure mu gaañu ci zone moom it ñu ngi koy masawu bu baax noonu la compétition am ñàkke yàqoo ñu ngi koy masawu. day wax ni làmb noonu la sport la boo xam ne sport de combat la te ku ci nekk séntu na ni blessure mën na la mën na la dikkee à mën na ñëwee nu ne ñuy masawoo xale yooyu. gis ngeen final bi dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak général bu Malika bëriwaat nañ ci biir bëre ñu wuure Serigne Ndiaye 2 daan général Malika jël bu amul benn werante gis nañ ni général ba ko Serigne Ndiaye daanee am na lu ko metti noonu la mbër boo amee lu la metti samdi dimanche boo dajawaat ak sa adversaire di ngeen ko wane. Serigne Ndiaye nag li ko metti samedi Doudou Sane euh, général Malika li ko metti samedi digganteem ak Serigne Ndiaye dafa mel ni faj na ko ci dimance bi mbokki dañuy dem ci dimance bi xool Serigne Ndiaye 2 ak du euh, ak général Malika seen combat ba ñoom ñaar fan lañ ci mujj ay ca ñu dem. Thank you. mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante général Malika ak Serigne Ndiaye 2 waat nañ ci biir bëre kii di général Malika daan Serigne Ndiaye noonu la. parce que munoo bëree mbër samedi mu daan la final ngeen dajawaat dimanche mu daan la finaal day metti maa ngi félicité bu baax général Malika. wane nga ni ci làmb nga bokk wane nga ni làmb am nañ ci yow yaakaar wane nga ni fi say ndaanaan di say morom di toll ci làmb war ngaa mën a toll fu ni wala fu mu ngi lay féliciter ndax Serigne Ndiaye ñu bari dañ ko dañ ko defoon favori ci komba bi c'est parce que ndam yi mu nekk ci dynamique gu victoire yi mu nekk moom it ñu ngi koy félicité moom Serigne Ndiaye gis nañ ci moom sportif boo xamante ni ndeysaan nit ku nit ku am yar la nit ku am teggin la ci biir làmbam mu daan la ak nga daan ko moo tax nit ki li nga leble rek loolu lañ lay fay da daan général Malika samedi kott ko waxtaan ak moom saafanteeg moom mu daan la dimanche li nga ko lebaloon la la fay mu kott la saafanteeg yow waxtaan ak yow loolu mooy làmb mbokk yi su ko defee dañuy dem national moom moo production moo ñu fa woon le 15 août. grand combat bi doxoon ci diggante baay ma Mandiaye numéro 2 ak Kaaw Gourdin mu nekk làmb joo xamante ni combat espoir la mais ñaari xale yi wane nañ jom wane nañ ful la wane nañ fayda gannaaw loolu dañuy dem ci ambiance. ñëw ci combat yi su ko defee dellu si ci plateau bi ay ca ñu dem ko Sa Thiès 50 daan na Karbala Sa Thiès yi ñoom ñaar combat spécial baa ngi noonu gaaro gaar ama bu Malika ndeysaan drapeau Fallou Ndiaye dara feeñagul daw na jëli gaaro gaar daw na jëli ko wër na ndomba ama wër na ko ndomba wër na ko wala déet daana na ko jeex na Garo Gare daan na Ama bu Malika oh xoolal mbooloo mi xale bi indi. déglu Kaw Gourdin Kaw Gourdin jiital tànk càmmoñ Baye Ma Ndiaye jiital tànk càmmoñ muy ñaari garde normal ñoom ñaari xale yi Baye Ma Ndiaye Kaw ñaari xale yaa ngi noonu. ñaari xale yaa ngi noonu Baye Mandiaye Kaw Gourdin Baye Mandiaye Kaw Gourdin daw na dóor Baye Mandiaye dóor na na daw na jëli ko jël na ko Kaw jël na tànk ba dëj na ko wala de daan na ko Kaw Gourdin daan na Baye Mandiaye Kaw Gourdin daan na Baye Mandiaye Kaw ndeysaan nee na baal leen ma. mbokk yi gis ngeen combat bi doxoon ci diggante ma Mandiaye ak Kaaw Gourdin mu nekk làmb joo xamante ni combat espoir la Kaaw Gourdin dafa duggoon géejawaay daan fa caatu Daouda Fall duggaat géejawaay am fa Baye Mandiaye numéro 2. Baye Mandiaye xamal ni ko boo njëkkee woon ci man doo laal keneen Kaaw Gourdin gëmloo ni ko damay dugg géejawaay am naa fa ndam dama fay duggaat am fa ndam te duma fa jóge jaadu na waaye ci biir bëre bi Baye Mandiaye da ngaa def erreur bu rëy mooy mënoo di bëreeg mbër mu mel ni kaw Gourdin nekk ndaanaan ci làmb mën a bëre mën a xeex nga waroon tiire ci leçon combat bi mujj diggante mag caatu euh, Daouda Fall xam ni caatu Daouda Fall daa ñëw mu xeexak moom caatu Daouda Fall jël ko kaaw dëbbu mu ànd ànd moom bëreeg moom bëre bu rëy ba daan ko tey loolu rek. boo ci jëloon comme leçon boo ñëwee combat bi mun naa bañ a demee ni mu demee. mais Baye Mandiaye li ñu gis ci yow mooy da ngay bëre kaaw Gourdin séddoo ko cër benn yoon at bi ne prip xamuñu loo indi te Baye Mandiaye mën nga bëre mën nga xeex mën nga lépp mais kenn xamul lu Baye Mandiaye indi ci làmb ja du bëre du xeex ci biir bëre bi ngeen bëre yee ñaar wure ci bëre kaaw Gourdin daw na coppet sa tànk ngay bañ di ko jox tànk bi di bëreeg moom déedéet mbër am na fu mu lay yegg ci tànk doo rëcc ndax Kaw Gourdin ku ne xam na ni ndaanaan la ndax bi mu jëlee sa tànk daf la bëgg a dëj nga bañ dëj na la ba nga toog jugaat xamoo sax lu la daan dégg nañ ci biir làmb ji ba mu jeexee baay ma jaay interview yi ngay def ngay wax di tudd ay waajur loolu rafetut ci làmb donte jéggalu nga mais rafetut xale yi nañuy amaat comportement bu baax ci làmb mais nañu xam ne ni ñuy waxee xam ne ay kilifa dañ leen di seetaan ay nit yoo xamante ne ay responsable lañ dañ leen di seetaan loolu bu amatee ngeen di jox cër seen adversaire surtout di ko sédd cër. ñuy félicité bu baax Kaw Gourdin di ko wax ni yegg na fi mu jëm jot na nag ñu muy tàllal loxo ñu may ko loxo mu bëreeg ñoom ndax loolu mooy làmb. sëñ Basiru tey taw bi ni ko duggee ak say bolok damaa tiit waa waaru mais macha allah bolok bi wala leen taw bi liggéey rek ko waral sëñ Bas laay saali xeer loolu mënul ñàkk mbokk yi gis ngeen combat bi ni mu demee ba kaw Gourdin daan Baye Mandiaye Kaaw Gourdin nag làmbam war naa gën a mën a ubbeeku ndax xale yi fi gën a të amuñu defet bokk na ci ñi leen jox defet wala ñi nga xamante ne ñoo gën a néew defet jox na leen defet bi muy daan. Euh, xale bi nga xamante ne mooy Thiatou Daouda Fall bokkoon na ci favori ci équipe ci ci ba mu finaaloog moom daan ko bi muy daan Kaaw Gourdin bi muy daan ma Mandiaye numéro 2 Baye Mandiaye de musul am defet mu daan ko kon loolu yëpp wane na ay preuve ci làmb gën leen ko tàllal loxo bëreeg moom surtout ñi nga xamante ne ñoom lay ñaan sens il est temps ñu moom xam ne xale bi kat yéeg na mbokki yi dañuy dem stade Amadou bari tournoi de football moo fa amoon wala match gala bu mag moo fa amoon dox ci diggante cent pour cent Pikine cent pour cent Parcelles ak cent pour cent Géejawaay mbokk yi Balla Gaye ñëw indi équipe am muy Géejawaay Papa Sow ñëw indi équipe am muy parcelle mbokk ñu leen xamal le roi des arènes Modou Xarañ Lo buggoon naa ñëw waaye fekk ko Sénégal ma nga États-Unis dañuy dem ci gala bi rek wan leen xale yi ni ñu ñëwee ci compétition bi ak ni mu demee su ko defee ñu dellu siwaat ndax lu am solo la ci làmb ndaysaan gis nga mu ngi noonu lii lii mooy sport lii mooy sport demi-keen du yoon soirée Ngor Ndiaye Gueye li nga yëpp demi-keen du yoon demi-keen nee na fay dem mais saa yu fay dem bàyyi jili moom fay yóbbu man xamu fa woon sax ndax fa lay entraîné tout près mosu ma xam mais bàyyi jili moom fa yóbbu mais tey initiative bi parcelle ak bu ñu dajee. dër bi gis nañ bi bi bi combat bi mujjee am Fils de Balla. mu nekk combat bu métti mais tey ngeen créé lii. ban ban message ngeen ciy jàllale. waaw message bu ñuy rek mooy sport toujours rek gis nga ne bu ñu bëree ba pare Fils si ko. sport bi ñun surtout woon monde lamb dina war a gën a ñemeloo nit ñi milieu bi ndax gars yi yoo neen ba xaw ko ragal li def mooy ñu gën a defar suñu ay image boo xam ñoo bu ñu proposé match bi rek dama ne leen lu rafet la nañ ñëw ñu fubal ci yar ak teggin fair play gars xam ne ni sport la rek bu jeexee tamit ay doomu nday lañu ay frère lañu ñoo bokk lépp quoi waaw. lan ngay wax yeneen gox yi su mel ni Pikine Guédiawaye ak euh, Langsar ak nekk. nga xamante ne am ngeen lii mooy cent pour cent Pikine dañ préparé ñëw jël waa parcelle wala ñu jël Guédiawaye wala ñu jël côté Thiaroye def ko noonu def ko côté bool bool yeeg côté Médina côté yëpp daal bu ñu dara quoi ñu xam ne sport bi daal dafa toll ci gox ak gox gox gox intérêt mbër mi la intérêt promoteur bi la te it mbégte amateur bi la mooy mbégte fan club bi lay doon. bu wala Balaye capitaine. yéen ñaar dama si si foofu la moom yéen a ngi xam quoi amuñu problème bu gars yi dugg biir naan problème problème problème. boo fekkee guy gi Balla Gaye danaan nii ñuy wax xanaa amul nga fekkee guy gi Lac de Guiers danaan lii amul nga fekkee Balla Gaye Lac amuñu jot boobu ñi nga xam ne nii ñu sew yi la ñu sew yi ñu sew yi yoo yu génn yu sew yi nañu tëj seen làmmeñ ñu li ñu bëgg mooy jàmm suñu suñu biir xam nga ni guy gi dooni Balla Gaye ci bëre nga war di ko tëkkaleeg moom doon Balla Gaye ci xamama di ko tëkkaleeg moom. soo ñoo xam wala Balla capitaine loolu ma wax de. voilà mi may wopp. mi ngi may wopp. waaw mi ngi may wopp. li problème bi. li tax ñu def ko. initiation bi mooy cent pour cent. ñun amuñu cent pour cent mais cent pour cent wax def ko. Fils de Balla bëri na fee góor soog pare dem mu rafet ñu pare ñëw ñu te bu ñu amee adversaire adversaire mun na fee taxaw laam mun na fee taxaw ñu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñii dekk stade di di buddi yi nañ ko baax nañ xool ci lii ñun ay benn lañu violence nañ xool ci lii nañ ko bàyyi diggante gi ay parcelle dañoo bëgg mu gën a nooy parce que dañoo jigee golf ca la bokkook yëpp yëpp waay la na gën nooy gën nooy ci ñu lay commencé ñun leader parce que porteur de voix lañ ñu waxee dañuy déglu tey jafe na tey nit woote ñu wuy si la mais ñun ñu déggee ne fii ñu fa rek dañ fay ñëw waxuma nag ñu wax kon li wax nañu ko déglu bu baax ñu moytu violence yi moytu damm saisi jàppale ñu ci suñu ñun ci li ñu bëgg mooy ñu nekk benn Guédiawaye te incha allah yoon dañoo baax rek affaire yi fu mu toll nag moom ñun ñëpp la dañoo baax du man de su ma la woon damay ñëw baal ngeen di du sotti da cee ànd moom moom njëkkoon sax ne ma maa ngi lay woo jotu ma nangam pour am ni kon sawar na pour ñëw la da gerte noonu keneen ak noonu nañ bàyyi loolu. guy gi boo bëggee dëgg-dëgg télé yi nii jàpp ku ñu tàllal micro ngay wax sax la ne ci kii yooyu moo dul yoon di yàgg nañ li gëjoon def la ak li gëjoon am la monsieur bii di moo doon organisé yu mel nii donc yàlla suñu borom ñàkkul jot ñëpp ñàkkoon jot aussi nekkoon kenn ku nekk sa ruq nekk ci ay bagages yaa ma gën a xam vraiment pour revenir dañ koy kontaan ak suñu mbokk yi mu jaar ak DPR ak ñëpp ñooñu kii yi nga xamante gis seen taxawaay Aliou Marley na seen junior vraiment moo lim dafay jóg waa parcelle aussi tamit euh, seen équipe yi ngi leen di sant di leen gërëm parce que gis nañu affaire yi rafet bu leen neexoon aussi ñu ne dañuy xëccoo njëkk a ñëw ñëw aussi bu ñu déplacé ñëw ñu ngi rafet bu baax leen woon ne fii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lu ci waay di wax a lu ci waay di def nga xam bu baax lu ñuy man la dëgër bu ma neexee dama koy yàq lu ma neex kuy ji ma neexee dama koy yàq lu ma nekk yoonu kenn ñëw ci ñun la concerné personnellement mais ñu xam na rek entre lii ñuy def nii kenn ku nekk dañoo bëggandi si biir bañante wuñ suñu biir bu fekkoon loolu dafa am kenn du nangoo ñëw kenn du nangoo déplacé en tout cas daal yàlla suturaal nañu lépp lu waay di def cent pour cent deux cent pour cent mille pour cent yàlla xam ne ci géej waay lañ ko gisee ñun ay royukaay lañ ay exemple comme bu yàlla dogee aussi tamit ñëpp di roy si ñun bu ñu tar bu ñu géejee gisee sax bu ñu xalaat ne dañoo réeroo wala dafa dafa mais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Lac de Guiers di gërëm Gouye Gui di gërëm Adama Ngom di gërëm Lirou Diane ak kenn vraiment di gërëm daal yéen ñi sax ñu ngi leen sant. bala Balla parce que Balla. léegi nag léegi nag mais Balla. Balla Gaye boo nga ñëwee Balla boo nga ñëwee gis sa frère Lac de Guiers gis sa frère non yaa on est ensemble parce que yàgg nañu gisee aussi tamit vraiment c'est la première fois mais li mbégte la rek pour Sénégal yi waxkat yi aussi tamit xam ne vraiment jàmm la barke yonentu yàlla Muhammad ñi ñu ngi caaxaanee lu garaaw lan la man ci baa loolu wóorul nan nga dugal ma part yow fan nga nekkoon ba heure bi non dama doon nelaw bi de un un la moom géej waay moo njëkk a dugal na état bi waaw dégg nga waaye mënuñ maa di gérer. lu tax dama dugg dugal. ban poste ngay fubal. ban poste ngay fubal Alboury. ban poste ngay fubal. man yàlla dafa def man dama polyvalent. waaw man boo ma tegee ci. ailier terrain bi damay fubal. ailier ailier terrain bi damay fubal. dëgg la boo ma tegee ci ci touche bi damay fubal. Hmm. boo ma tegee ci ci défense bi damay fubal. Hmm. boo ma joxee penalty bi damay fubal. Hmm. léegi dama polyvalent macha allah léegi terrain ñaata joueur mooy mooy fubal ci terrain. Ah, équipe da ngay dugal rek da ngay xiyaasu rek. da ngay dugal rek ba ba gars yi doy ñaata ñëpp dugg rek fubal. ñaata. ah est-ce que du ay ay ay vingt et un vingt et dugal. mais xoolal terrain bi fii fii ñoom yëpp na vingt et un. lii du la fu waay jeex rek dugal. remplaçant yi ñaata lay doon. xoolal remplaçant yi ay ñaata ay ñaata équipe. normal équipe équipe normale. histoire ba football di baax. waaw ba football dina am vingt waaw si baa bi am bu dee douze. ñu teg ko foofu ak coach bi ak gars yi may ndox. gars yi may ndox football laa lay wax. yooyu yëpp ci la bokk. football mais initiative bi noo ko gisee en tant que. waaw mais dafa naaj barki alquran. Hmm. ba ma dugg see gis waa géej waa yi waa parcelle yi. xam hmm. nga xaaral bi guñu bàyyi li def. arrêté. léegi. ayca demal Alboury daal mooy Alboury. noonu laa la demee ñëw ma may tuuti ma ma ma remarqué ma at ma ñoo koy seetaan may leen ko may leen ko barki sëñ Bamba damay football ban poste ngay football man man maa ngi ci mais yaa ngi woon ci initiative bi initiative bi noo ko gisee donc comme ni ma la waxoon rek initiative initiative bi dafa naaj ba ma dugg see ci stade bi gis waa Guédiawaye fii waa waa Parcelles fii ñu mel ne xam nga benn lañu ah ñun loolu lañ ci bëgg quoi loolu lañ ci bëgg affaire bi dafa naaj te wax dëgg yàlla lii chaque bu saison tëjee dañoo war a boole xool yëpp waa waay waa Pikine waa Caaroy waa parcelle ñëpp nekkaat benn xam nga ñu xam ne làmb fu la mm-hmm. bu jeexee jeex na mm-hmm. ñun ñooy may taxaar ah, tey jii ku fi am bànneex wala naxar mm-hmm. da ngay gis mbëru Géejawaay dañuy def seen déplacement ñoo bopp parcelle. Oh ñëw toog gérer mm. waa géej waa tamit ñu ñu noonu la demee. tamit mm. bu ñu amee luñ mënti da ngay gis mbër yi ñëw. Mm. ñu wàññi violence bi surtout supporters yi. Mm-hmm. nañ xam ne ñun ñëpp benn lañ. Alboury war naa am géej waay supporters yu bari xam nga Alboury war naa mën a am Pikine supporters yu bari. loolu yàlla moo koy def mm-hmm. mais pas ñu nekk fii di xuloo di xeex amul sens ndax tension lu mu rëy rëy rëy rëy bu dimanche lundi ñëpp fàtte ko dëgg la kon nañu bàyyi xel si loolu te xam ne lii amul solo quoi. Mm. li mooy àddina kaf foo ree bu bu bu ñuy fubal nag wala bu ñuy bu ñuy bëree bu ci biir kii bi. Mm. nañ raayante mais bu jeexee jeex na. Alboury dama am lu ma bett. salaamaaleykum wa rahmatulah dama am lu ma bett. ma dama am lu ma bett. lu ma bett bi doon wax dof laa ko jàppoon mais discours bi nga tenir nii ku ko dégg xam ne Alboury yaram bee dof mais xel mi doful rek. man sama dara doful xam ne ah ndey dof ndey doful ndey dee dof rek man damay dof dof loo fi nekk rek. waaw mais gërëm dal ñu li gars yi bëgg la ñu bëgg xam nga dañuy doxal di waxtaan xam nga bu wax lu baax jotee lu sérieux dañ koy wax mais bu mbalak kaf fooree jotee dañuy kaf fooree. waaw an sa doom day Tapha Mbeur gisuma ko de. Tapha Mbeur ñoo waroon a ànd bu doom bi moo pan. waaw ah. bu yor lu baax mu. bu yor lu baax jabar ji fi mu nii jabar ji koy bëgg rek. lii mooy sport. làmb bu tàqalewul bu boolewul warta tàqale tey boo xoolee ñu bari ci làmb ji keroog am nañ fa ay adversaire waaye gis ngeen ni làmb ji demee Papa ñëw Sa Thiès ñëw bala Gaye 2 ñëw Lirou Diane ñëw Alioune ak ñëpp ñoo xamante ne ay ndaanaan lañ parcelle tamit noonu ñu ñëw def match boobu nga xamante ne tey dafay boole lu bari dafay rattaxal ay diggante gis nga Balla Gaye tey mbër mu mag bi mu doon champion bi mu doon mu wàcc ci géew bi sol équipement dugg ci terrain bi di football. loolu dafa am message bu bari bu ci xale yi mën a jànge mooy nit kat lépp loo mën a doon bul fàtte xale yi nga xamante ni tey ñoo la bëgg rawatina ay supporters rawatina liy rafetal dëggante ñoom ay exemplaire lañ ci làmb muy Balla Gaye muy Papa mais maa ngi félicité bu baax monument bi di liiru jaan liggéey bi rafet na mbokk yi loolu mooy làmb loolu mooy sport ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb ji di leen jaajëfal di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi may suivre ci TikTok bi maa ngi lay jaajëfal di la nuyu di la bége ndax nag wolof daf ne waxtaan waxtaanu géwél lu mu neex neex ci may ma lay mujj maa ngi félicité bu baax a baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi ciy jàpp.